coowal Aïda Ndiongue lii eh, tribune yéene kaay ne jigéen ñi bokk ci parti démocratique sénégalais de waaw démb daal ña nga woon kon ca ab assemblée générale AG ngir ñu génnee kon ay Aïda Ndiongue ca kaso bi nga xam ne kon moom lañ ko denc de assemblée générale googee waaw yéene kaay gi nee na noo daal daanaka daanaka rek ab meeting la woon sabar ko tas ma ne la ab meeting la woon ñoom jigéenu PDS yoo soloon nag lu xonk tur xoola ñaaña tur ak musoro gu xonk ga waree Sarr jiite leen ñoom waa la ñu xamle daal mooy alalu Aïda Ndiongue li nga xam ne kon alal ju la ay da Ndiongue ci boppam laa lay wax nii wane nañu ne Ayda Ndiongue mi lay alalam ji kon ju leew la waaw waaw jigéenu Abdoulaye Wade yee yemuñ ca ndaxte nee nañu Ayda Ndiongue moomee waaw ba muy am xaalis laa lay wax nii alalam ji Abdoulaye Wade ci boppam faloogul laataa alternance bu njëkk ba 2000 Ayda Ndiongue ngeeg alalam ji le wara saar ak ñamu àndal yemuñ ca ci tribune yéene kaay ndaxte woo ñu nag ñi nga xam ne kon ñoo doon liggéey ak ay da mi le di ay ancienne collaboratrice am waaw waaw tamit ci parti socialiste ñoom jigéenu libéral yi ñoo xam ne lu mel woo nañ ñu daal di kon dikk ci xeex bi jàppale ndax nee nañu kat xeex bi xeexu jigéen ñëpp la jigéenu PDS yi xam nga coow lii lii lépp nag Mimi Touré ne ca ginnaaw i ilaha illallah Aminata Touré premier ministre ba daal moo bëgg a liquider nag way politique yi nga xam ne responsable parti démocratique sénégalais tontu du forox de déedéet yéene kaa gi ne ñi nga xam ne maanaam ñoo ànd ak Mimi Touré tamit day waaw dëkk ca Grand Yoff jóg nañu taxaw de ne dañuy jàppale nag premier ministre bi la Mimi Touré te fu mu yem de respect la ëttu attekat bi di magistrature bi ñun waa Grand Yoff daal la ñuy xamle mooy ñu ngi encouragé kon suñu magistrat yi ñu continuer def kon seenug liggéey lal ko nag ci yoon waaw lu jëm nag ci ñi nga xam ne kon nañu yàq deru Mimi Touré mi le di premier ministre bi ah nekk tamit responsable APR lañ leen di xamal daal mooy léegi ku ñu ko samba ñu saañ la ko ba mu tere bi waaw waaw ku ñu ko rimbax ñu timbax la ko rek œil pour œil dent pour dent barke Rasuul laay ah ñi ànd ak Mimi Touré ko wax waaw daal dinañuy xamle it ne gis nga premier ministre bi le waaw daa taxaw rek dëkk tëkkal taxaw rek ànd ak détermination di jàppale kon président de la république ngir dëkk bi avancé te avancement réew mi kat sénégalais yëpp teg nañ ci kon seenu bët Abdoulatif Coulibaly ci direct info ne procureur ci boppam liggéeyam la def ah waaw ministre bonne gouvernance ki la populaire moom Abdoulatif Coulibaly nee na violation secret de l'instruction mais mënul am fii déedéet parce que mbir ma ca boppam teereegul kon ca juge d'instruction ba Omar Faye ci tribune yéene kaay ne Serigne Bassirou Gueye procureur de la république waaw daal dossier yi nga xam ne mooy yoo ay na te loolee ma nga ca kanamu buur njiital leeral askan wa yamu ca ndaxte nee na yow ca jamono joo xam ni kon procureur de la république gile waaw mi ngi jaar ci yoon woo xam ne du yoon baaxul mais yeneen i dossier yoo xam ne nag nit ñi soxla nañu kon ku leen ci indil ay gindi ña nga ca turwaal ya kenn waxu ca dara ba dara booloo jeex lu ci mel ni Thierno Ousmane Sy wala boo kii di Ndeye Khady Gueye mais ñoom ñaar ñi le am nañu ab bàyyib nagandiko tax génnee wuñu leen luy ndaw ñu denc ji ne xam nga man dossier Aïda Ndiongue ay ree la ma def sax quoi non non non mais li li <laughs> Omar Faye ci tribune yéene kaay ne man daal maa ngi woo président de la république waaw mu daal di moytoo dugal réew mi nag ci am guta marté taali waaw waaw ba cëg règlement de compte éternel waaw parce que réew mi ci boppam nañ leen ko wax yoon wi mu jël baaxul te lii daa ñaaw nag yow réew moo xam ne libanais yi ak français kese la ñu nangul daal ñu doon ay milliardaire luy ndeyug li boo nekkee libanais daal naaru libanais waaw wala mën ngaa nekk milliardaire ma ne man dossier Aïda Ndiongue bi ay ree la ma def laa la wax Serigne Moustapha Amar ci le quotidien yéen kaay ne Macky Sall ci boppam mooy wutal boppam ay noon yaakaar gi nga xam ne moom la ñu yëkkati woon nag lal ko ci ndoddu président de la république yaakaar googee saay bu ñu xëyee muy gën di tas déet waay sëñ bi sëñ Moustapha Amar borom Thiès te ah kay parce que bu doon cent pour cent la léegi bu ñu nee xëy na cinquante pour cent la dese bi dafa makki dëkk bi dafa makki dëkk bi dafa makki kase sëñ Moustapha Amar dolli na ca ne ci yéen kaay ma jambal jàngi waaw nee na ñaari mbir daal la fi Macky Sall defagum yu baax bi mu toogee ak léegi ni koy dugg ci réew mi wuti visa ak wàññi xanaa luyaas bi nga xam ne ñu ci projet bi kase te la Macky Sall war a def it mooy génnee Karim Wade ci kaso bii bu dee gars yi ay preuve di ay firnde vérité du journée coowal Karim Wade googee un chambre d'accusation ba nekk nii comme sabar gu tas day jax-jaxi laa lay wax ni la notaire Moustapha Thiam ñi ngi koy toppee ñaari milliards ak ñetti téeméer kon ci kaso ba weeruk octobre tribune yéen a kay Bara Sadi waaw ma ngay jàkkaarloo tey ji la ci àllarba bi kon ak attakat bi juge ba libération yéen a kay ne Bara Gaye day waaw ginnaaw ba ñu yëkkatee juróom-benn weer lal ci ndoddam yëkkati na ay kàddu xam leen ne mësuma offensé di jaxar bi kon président de la république comme ni ko tribunal bi waxe loolee amul man Bara Gaye nag la may xam le mooy gis nga suba suba ëllëg daal waaw Amadou Sall wala Marème Faye wala Alioune Sall mais mën nañoo dugg ci kaso bi ñoom it marte itaali laa ilaha illallah laa ilaha illallah baara gay ne ah kay te bu boobaa nag la président Macky Sall di comprendre lan mooy kaso nekkul loo xamante ni nii maanaam dañ koo war di caaxaane kaso affaire bu sérieuse la tribune yéen a kaay ne réew mi day bu Idrissa Seck nit ñaa ngay dem rek réew mi ngay jax-jaxi laa lay wax ni lay Idrissa kenn tegu ko bët Thierno Bocoum ne ku nekk moom sa bopp démocratie la fu waay bëgg a dem nga dem waaye ñun li ñuy concentré wu daal mooy macha allah militant yu bari yi nga xam ne kon ñu ngi ñëw ci parti bi quotidien yéen a kaay ne hôtel président waaw ak yàqu gi nga xam ni kon mi ngi koy yàqu ni lée racine si day maa ngi koy defaraat nag man dem naa ca lamb jë tribune sor ne combat bi fanweeri fan ak benn coorug janvier ajuma bi di ñëw bi topp Eumeu Sène Modou Lô Eumeu day mi ngi préparé Modou Lô ay marto i ay marto laa la wax Eumeu Sène ci suñu lamb ne combat bi waaw jàppale ne day teel a jeex i daay <laughs> si nga Eumeu Sène nee na combat bi day teel a jeex te gis nga bu bis baa bu bis baa non Modou dina xam <laughs> alaaji lu Modou di xam yow laa ca wóolu tontu ma boo paree ma ni la alaaji tëjal. cuuni cuuni